منيا ما تخشى أواقبه كأنني بهما هدي من النعمين ويا الصيبة فيها لدي وما حسدت إلا على الأحزان والندم مولاي صل وسلم دائما أبدا خسارة نفس في تجارتها لا تسترجين بالدنيا ولم تسمي مولاي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 وهو أول الخلق بالإمام مولاي صل وسلم دائما على أبيك غير لم يكن فيما آتي آخذا بيدي فضلا وإلا فقول يا زالد القدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على أبيك غير الخلق كلهم حسن أن يخرم راجي مكارمه أو يرجع الجار من خير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا ألزمت أفكاري مدائعه وجدوا لخلاصي خير ملتزمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على خليك خير الخلق كلهم يفوت الخنا منه يدا تريبا إن الحياة ينبت الأسهار في الأكم مولاي صل وسلم الزهرة الدنيا التي ارتضاءت يا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم على خليلك خير الخلق مولاي صلي وسلم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 حادث العمم مولاي صلي وسلم دائما ابدا يا سيدي يا أبا زهراء من له من والسقم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم أنا بالباب لا أبقي بكم بدلا حتى تفرج ما قد هال من هممي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على بيك ولا يضيق ولا يضيق الرسول الله كريم تجلى بمنتقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على دينك خير فان من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على بيدك بالله ابن في بيع وفي سلام لا لي ولا للنائم الأبدا عليك للخلق يا رب الرجاء خير منعكس لديك واجعل إيسى بخير منخرم مولاي تدعو يا انحازمي مولاي الظالم دائما أبدا أنا لك وعد النصب صلاتي منك دائمة gonsaji mi. واغفر لنا ما مضى المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي الزال دائما أنا أنا بك خير الخلق بالجار من بيته في طيبة حرم وإما قسم من آدم القسم مولاي لرسول وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم تستغرف الأدم جمع الدورك ما تؤيت بالحد لا تبقي ولا تدع لا غاية وانت أي عظيم لا ولا لا أماد يقضى ويعتبى وأدى أدى فيما قد مر من أعداد الماضي بأضعافه يا من له القدر وسلم دائما أبدا أنا في كار الخلق يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على النذير وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا ربي صلي وسلم دائما أبدا على الشفيع وآل البيت كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على غيرك وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار في الخدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار في الخدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار في الخدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار في الخدم فقد صلاة الفاتحة na yàlla nangu ñaan yëpp di gërëm waa Fass yi jëm yow Fass ñëw nañu léegi biri wa taqwa yal na yàlla yàggal taxawaay yi hani an lana min usafaati fi gadi yonen yanaalu rida kulli abdin waxidin ala xatayin fi danbin aw alada gudi جرائرنا تمحى بجاي محمد إذا سفي المأبوب جاز المبرج 嗨。 للتخصيص فوق الخصوص مزية ينن سنده إليها قسمة أسلية مكانته في المرسلين ألية إنارته إسا وأقلا جلية فلن وأم يسولي ولا شك يدرواه بجاه محمد إذا شفع المغفور وجاس المفاد فيا ربنا في أرضي وسمائي أمتنا على تسديد قي باستبائه فإن وذو الأشواق يا يا بدائي يسف علينا العيش دون لقاء إذا الدين لم يكن فلا كانت الدنيا جرى آه عظيم القدر بالحق مرسلا نان به مذ كان طفلا وينخلا فلله منه وهو أعلى وأكمل أمين لإرشاد العباد مؤهل حبيب بأسرار القلوب منبأ करुणा بذا أبدا إن المنايل تهمي من مزاياه فقل لمن في قياس الشيخ مجتهدا قد عزى إدراك ما يحويه معناه معناه بحر فليس العقل يدرك ما وراء دور الحجاب لو كان يهواه لازم لوازمه تكفي لطالبيا من المنافع في دنيا وأخرى أكرم بي كرما يا أكرم الكرماء يا علم العلماء من تيب معناه هذا عبيدك عند الباب يقرأه وليس يعلم إلا أنت من حاوه إن المعلى لأعلى في المياسر قيس من جاءنا قدرون بي وأفشاه ثم الصلاة والتسليم الإله على خير البرية حقا ما تحياه وآله وعلى أصحابه الفضلاء أهل وأول وأول كل يخشى اللهم يا من أزهر الجميل وستر القبيحة ولم يؤاخذ بالجرير ولم يهتك السترة ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم السطح ويا بم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدي أم بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك ألا تشوق خلقتي بلاء الدنيا ولا بعذاب النار فامنن علينا إله العرش خالقنا بصحبة القطب في الدنيا وأخرى بارك ماك بارك مدينة بارك فاس بارك تيوان بارك شيخ الحاج مالك بارك سيد الجميل يلا يلا نعم جرجف جميل يلا يلا di leen ndokkeel bu baax ci lii ñu yàlla boole tey ñu ngi am mbégte bu baax di ñaanal yàlla ñi ko organiser yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla na yàlla dolli leen wér ñi fekke mboolem soxla bu fi waay indi yàlla na yàlla faj ko ku fi indaale yaramu tawat yàlla na yàlla saafara ko yàlla na yàlla def jàmm ci barab bi def ko ci yarax yëpp def ko ci dakaar yëpp def ko ci senegaal mu wër àdduna bi te loolu yàlla mën nañu ko nangul te am nañ ci njort bu rafet ndax ki tax li tax ak ki tax ndax Seydil Haaji Malik si radiyallahu taala anhu yàlla nañ ko yàlla fayal moom mi ñu fàggul lii nee naa ñaar mënuñu mënu mënuñu ko koo fay kon nañu ñaan rekk suñu kemtalaay kattan te bàyyi ko suñu boroom ak ki tax mu def ko muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydil si radiyallahu taala anhu mënuñu ko fay tànn bi mu ñu tànnal màggal juddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënuñu ko fay soit bim ñu defal ci alburda te wallahi ñi fi tew mën nañ ko sédé li nga xamni mom la dëxëñ ci biir khilasu zahab mënoon na def lu ni mel waye mahabbam ci yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam tax mu def soa ci al burda ndax bayit bobu ngeen jàng ngeen di jàng fa mablaul ilmi fihi annahum basharun wa annahu khalqi xalqilaahi kullihim bobu nga xamanteni sang bu tedd bi mo ci duggal kaddom mag ñi wax nañ ne bokk na ci li tax Seydil Hadji Malick si def choix ci Bordeaux kon yàlla nañ ko yàlla fayal euh, mbokk yi sànq ñoom ñoo ma déey bëggoon naa oustaz Kouyaté fekke ko waaye yàlla dogal mu dem defe naa waa kër Mame Seydi Djamil danañu seede li may wax samedi bële ci ginnaaw lañ doon def ouverture Bordeaux yi ci place de l'Obélisque waa sëriñ Serigne Moustapha di ko taxawee at mu jot ndax lii ñuy def ndigalu Cheikh Seydil Hadji Malick Sy la waaye ndigal li at mu jot xalifa bi moo koy feddali sëriñ Abdou santaane woon ko ñu daan ko def at mu jot ren ak daaw yëpp suñu xalifa bu tedd bi sëriñ Mbaye si Mansour feddaliwaat loolu Serigne Pape Malick Sy wax ni sur les traces mu ne nañu jaar mbir yi fi ko Al Amine daan jaarale di def li mu daan def parce que li mu daan def mag ñee ko ko santoon mu daan ko def suñu xalifa bu baax bi ñëw ni dara du changé li Serigne Abdoul Aziz si tracé woon nañu jaaraat foofu burdu yi kon ci seen ndigal lañu koy defee di ko décentraliser te nag dafa jot dafa jot ñu yaatal ko li ma jaaxal kay mooy liste bii ma won mbokk mi léegi dama ci gisul dama leen ci gisul yéen te yéen yéen a ngi mel ni yéen njëkk a organiser bourde décentralisée parce que man dem naa Mbàkke barki dem defe naa gis nga ko fii dem naa fekke bourde Mbàkke bi ñu demee xalifa ba moo ñu dalal ñu yendu Tuuba dem Mbàkke fa la ñu defee bourde ba njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick Sy yëpp daje fa ñu jóge Mbàkke jubal Saint-Louis saint wi dajale lu toll nii suñu góor gu baax ba maam Maajoor Cissé doomam bu ñuy wax Abdoulaye Cissé boroom xam-xam bu kawe taxawe lu mel nii ma jóge fa ñëw fekke bu Grand démb tey Xalifa Ababacar Thiam bu góor gi Daouda Thiam bi nga xam ni mooy coordonnateur bi yabal ma fii ma ñëw waaye li ma fi fekk ak nii ñu jàngee burdu bi yàlla xam na ne burdu yooyu yëpp dégguma fa lii nii moo tax dama daanu yal na yàlla fay leen yal na sax yal na sax Seydi Hadji si fexe na ba fukki fanu burdu yi laata ñuy dem ci juuru gàmm mu sëmbëxtal ñu ñun ñëpp ci ndàmbal cuubu yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk yëg-yëg bi nga am sa xol buñ la joxoon micro bi tey doo ko expliquer parce que ki ñu Maodo tànnal moo tax li ñuy tëje nag mooy li Serigne Mansour wax nee na lay wi ñu maamam wutal lay wu ko gën a jub amul nee na soo paree burdu yi ba mu jeex nga war a dem fekke jeexatu burdu bi mu ne boo génnee ak sa bagage ak sa mbubb yu rafet ak sa parfum bu neex nit laaj la foo jëm mu ne tontu boobu lu ko daq amul maa nga jëm Tiwaawan mu ni loo fay wuti nga ne màggal ki tax ñu bind ma ci ndigalu kan mu ne Cheikh Seydil Hadji boobu lay kan moo mën a sàkk lay wu gën a jub boobu moo tax sax ci sax ci di ko sellal inchaa allahu ñëpp ñëpp ñëpp dinañ ci fekk ci Seydil Hadji ndax Seyyid Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum radiyallahu taala moo wax ne Cheikh Seydil Hadji Malick amul noon amul noon doo dégg ci àdduna ku la ni dama noonoo Cheikh Hadji mu ne ñun ñi yàlla dogal nag ci mbaaxam ñu bokk ci tànneef yi ba ñëw bokk ci mu ne ñun ñooñu ñetti farata lañu am mu ne farata bu jëkk bi mooy defar sa làmmiñ ba doo wax safaan mu ne bu ñaareel bi mooy yaatal sa dënn ba xajoo ñépp mu ne bu ñetteel bi mooy nga saxoo muñ kon loolu mooy suñu yóbbal ñun ñépp yàlla nañ ci yàlla saxal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gars yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla may gudd fan yàlla faj seen aajo yàlla may la ñu teew ko ay at yu bëree bëri. di gërëm nag délégation yi fi teew yëpp Marinas Yaraax Hann Trois commune Hann Bel-Air yëpp ñoo ko moom kon ñu ngi leen di wax bis bi seen bis la ne si ñëpp bàyyi xel di ñaan yàlla mu may ñu ñu teew ko ay déwén yu bëree bëri bëri bëri te suñu kilifa yu baax yi. di ñu gunge di ñu superviser yàlla yàggal leen suñu kanam wax dëgg yàlla ñeewante nañ leen si yàggaayu jotaay bi trop trop trop ndax mënuñu ko waaye comme ni ñu ko waxee sànq rek bëgg njaboot rek moo tax mu leen fi téye ni ni ñaanal yàlla bu baax a baax ñi ngi gërëm suñu mbokk murit yi tamit lépp benn la jullit yëpp képp bépp tariixa bu fi teew rek rawatina murit yeeg ñëpp rek ñu leen di gërëm di kontaan si yéen bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ñu teew koy at yu bëree bëri bëri Alioune nee na ñu ngi seen disposition président suñu leen woowee rek incha allah ñun ñëpp incha allah di gërëm Jamia Fass bi nga xam ne ñëw na léegi tamit macha allah yàlla yàlla yàggal àndante bi ñu teewee ko ay déwén yu bëree bëri bëri si barki borom weer bi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kon ñu jox imam rek mu ñaan. bala nga ko commencé ku la dàq wax fu muy taxaw di wax <laughs> su ko defee da ngay da kaa déglu rek 1906 boobee ba bi góor gi làq ko 1990 amul lenn lu ko fi umputul lu mu fi ump lu ko ci lu mu ci lu ci bari wax nañu ko nu xam ko amul kenn ku Seydi Hadji Malick jur ngay góor di jigéen te teewoo ci kër gi Seydi Aboubacar Sy moo ci gën a néew voyage mais li voyage am di néew néew ñëw na ba fii ci yarax ci kër Massor gi 1947 la fi ñëw alhamdulilahi rabbi alamina booba ak léegi mosunoo teqalikoo ak ñoom bari na ci lennat yoo xamante ni sax ñoom euh, sama diggante ak Maodo si bi bu xëy mooy taw Seydi Asi euh, Mawlaay Abdou Aziz suñ diggante sori na lool ñu bari xam xam nañu ko ñu ba am na ñoo xam ne umpal nañu ko te fi fii lañu dëkk alhamdulilah rabban terrain bii nu mbokk toog fii tey kere bi koy bi ñu koy rëdd ñetti nit dong ko fekkee woon man mii toog góor gi Amadou woon ak mosoo mi mosoo gi mi ku doon rëdd geex na amul keneen yàlla dogal na boo boobaak léegi lépp lu mu fi mës a nag yàlla def na ca barke yàllaay yàllaay dogal di jàpp bëgg-bëgg la am nag e ak léegi yàllaa ngi dolli sutura ci dëkk bi ak diine islaam surtout nag tey nag moom ci boppam it kilifaam ki mu defal muy kilifaam mooy alaaji euh, Saïd Nourou Tall kooku mu nuñ kilifaam man fi kër gi laa ko xamee muy góor goo xamante ni gi xam-xam ak yiw ak lépp dafa amoon génn jamono góor goo xam ni xam nga lu góor gi def dafa wut ak feetalam gu am doole def ci ñetti bal ni bal bii Ababacar Si laa koy dóor bii bal Seydou Noor Tall laa koy dóor ba ca des na laa xamatul góor gam nu mu tuuti moom la ko war a dóor moom ci boppam nag mu ñëw ci ñu dégg ni xalifa Babacar Si mi ngi ci fii ci Rivière mu ñëw mun ko gis mu ñëw ci buntu sawiye bi fekk fi si ay Sëriñ Nuur Taal maam Sëriñ Nuur Taal mu taxaw mu dóor ko ñetti bal yëpp <laughs> koko taxaw <laughs> bal yi wadd mu daw àgg police centrale ni am na ku ma rey fee commissariat central ni ko kaay dem ma xam ki nga rey kana mu ñëw fekk euh, maam Sëriñ Nuur taxaw mu ni ko kii nga waxoon mi ngi taxaw mu ni ko waa lu la xiir ci lii mu ni ko dañu ma dañu ma Eh, dañu ma tane duñ ma jëriñ dañ ma tane duñ ma dimbali <laughs> loolu lay ñu ne si alaji da ngay def plante muy lu may plante ci kii bàyyi mu dem ñooñu li nga xamante bi xamoon nañu ko suñ digganteeg ñooñu mun na ko wax ci ci benn bëccëg waxuma laa benn jataay alhamdulilahi rabbil alamin seen jataay rafet na yal ko yàlla rafetloo yal ci yàlla def barke liñ ci yaakaar bëgg ko ci yal na ko ci yàlla def lu ko ëpp bi jaayi seedi wara sa sam e léegi nag xam naa dañuy bàyyi alaji maama mu ñaan nu dem waaye <laughs> ma ci mu toll damay bàyyi daal eh, am naa daal sama eh, nayib daal mu ñaan alaji maama ñaanal alhamdulilahi rabbil alamin eh, léegi agsi nañu fii amul leneen liñ ciy teg loo wax rek da ngay répété keneen ki ñuy sant yàlla bu baax nag ñu mayee ñu fekke lii ñuy gërëm tamit suñu doom yi nga xam ni yàlla dimbale nañu ba fi nga xam ni bëggoon nañu ñu jaar fa jaar nañ fa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin su li ñu leen amul woon wuti ñu mel ni yéen ñu defal ñu lii ngeen ñu defal ñu ngi sant yàlla nag bi ngeen xamee ne yàlla def na ci seen xel yi ak seen xol yi lii nga xam ne jullit bu nekk war na ko rafetlu war na ko bëgg ñu def fatiha salatul fatihi ayatul kursi qul huwa allah qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ñaan yàlla yàlla nangul ñu lépp lo xam jamon nañ ko fi may ñu tamit ñu may ñu ñu dund dund dundu gu sel dundu julit ñu bàyyi ñu fi ba ci kanam ñuy ñaanal tamit ñi nga xam ñu dem nañu بسم الله أعوذ بالله من الشيطان اللهم صل على سيدنا وصلى الله عليه والهادي إلى سبيل بسم الله الرحمن الرحيم سلم آخر من سلم غاسق الناس اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وشهودنا وتساهلنا وتسبيحنا وتحليلنا وتضرعنا وتمم تقصيراتنا ولا تضرب بها وجوهنا يا مولانا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلو وقت إيماننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم تهب العفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم أرزقنا فقا في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق